Nancy Mbengue rejoint le lot des millionnaires créés par la Loterie nationale sénégalaise. En l'espace d'un pari, cette petite commerçante a décroché le jackpot et empoché une somme de 66 millions 400 mille francs CFA. xalaatuma ko woon sax xalaatuma ko woon dama doon def su may dem marché rek daal di sànni 300 ma xëy ne xaaral ma jaar foofu ma daan joué xool ba xam ma dem jël billet bi jox ko xale bu góor bi ne ko xoolal ma xale bu góor bi ne ma gañe nga mais man xalaatuma woon ne sax xaalis bii nii la toll ndax foo foogewuma ko woon yàgg na yàggul yàgg na yàggul. ah ba loto bi génnee ba tey maa ngi ci joué ba loto bi génnee ba tey maa ngi joué déedéet waaw yenn saay sax ma ñëw saa ni 300 yenn saa yi am tuuti yenn saa yi nag parce que xalaatuma woon xaalis bii sax nii la toll xalaatuma ko woon. yow ay ay 10 ay yu tegal daal xaalis bu ndaw rek yu weccil rek. xanaa xaaba ba bi ñëw rek ñu waxtaan ci ma moom ñu xool lañuy def waaye mën na liggéey lépp de wax dëgg yàlla kër moom bëgg naa ko ci kër waaw bëgg naa ko ci te xaalis bi mën nga cee am kër am ci leneen ak leneen ah xanaa ñëpp nañ joué ndax dëgg la de wax dëgg yàlla man jaaykat dong laa dama doon romb saa yu may dem marché jaar fa jënd kon nag na ñëpp joué ndax dëgg la waaw kontaan nañ torop ci Lonase. À l'image de Nancy Mbengue la LONASE contribue à la fortune de plusieurs autres parieurs, selon le directeur de la communication marketing de cette société nationale. Nous en avons beaucoup, des millionnaires, des millions, nous en distribuons beaucoup. Avoir encore un millionnaire, c'est ce que nous prions tous les jours, parce que quand même c'est notre credo. Et euh, notre slogan le dit clairement, la fortune aux souscripteurs, les bénéfices euh, à la nation. Donc avoir une gagnante quand aussi, euh, pour dire également que notre clientèle n'est pas essentiellement ou bien exclusivement masculine. Oui, euh, nos, nos, projets quand même, elles sont euh, très variés, divers et variés. Nous avons toutes euh, les gammes de, en cas de produits, allant du PMU jusqu'au loto, le pari foot, donc en essayant de, en tout cas de toucher le maximum de cibles possibles, euh, parce que quand même notre clientèle est répartie en différents segments, et les segments aussi sont variés.

embouche la même trompette. Je voulais féliciter notre heureuse gagnante au nom d'Editech et de la LONAS. Vous savez, le jeu commence vraiment à prendre de, l'ampleur. De plus en plus, les gens commencent à parler du loto à travers, euh, tout, le centre-ville. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Nous avons une heureuse gagnante ici, une millionnaire, qui a gagné un, un, une très belle somme d'argent et je la félicite. Non, c'est notre sixième millionnaire. Nous avons euh,

et les projets mûrir dans la tête de cette jeune mère de famille.